ma bëgg la wax nag Amina Poté ne man damaa seet ba seddee mais yow respecté sa bopp man sumi vidéo bu mu mujjee def ci yow génn naan maa ngi lay défendre ba nga divorcé man maa ngi koy réccu parce que nit ki boo jugee di ko défendre sax da ngay am ay argument mais yow nit ku la défendre da nga koy rusloo waaw salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ngeen mënti nekk ku ci nekk si roog i sant di leen wax ni welcome back sur ma chaîne Choumi TV yéen a gën a xam mën naa ni am rek ñu koy faral defee à chaque fois Choumi TV nag dama ñëw tey sama gaay pour waxtaanee ci koo am ne nii Euh, mun naa ni képp ku may saraan sax di nga gis ni du bii mooy la première fois mais ñëw sama chaîne di wax ci moom. waaw ndax man moom dama gis ni à chaque fois bu ma génnee di def vidéo di chroniquer rawatina muy cronique boo xamante ne nii dafay ànd ak ay critique damay gis ni à chaque fois ñi nga xamante ni ñoom laay ñëw di leen waxtaanee li may génnee di ko wan sénégalais yi du yàgg sax du mat benn deux mois wala trois mois ñu gisaat beneen preuve boo xamante ni dafa am connexion ak li doon wan. jëmm jii nag tey ma ñëw pour waxtaanee ko sama gars yi day koo xamante ne nii man su mi personnellement mënuma ko comprendre. waaw mënuma ko comprendre moom ci boppam mënuma ko comprendre ay kilifaam ñi nga xamante ne maanaam ñoo ko jiite ñu gën koo xam ci Amine Apoté bu ngeen déggee man Amina Poté c'est une animatrice à la TFM ñu ci bëri au Sénégal képp koo xamante ni ngay seetaan actualité mun naa ni Choumi TV du la présenté kan mooy Amina Poté li gën a waral nag tey ama gars yi ma génn pour wax ci moom parce que man dama jàpp ni que kii bu fekkente ne dinay seetaan actualité dama jàpp ni que Amina Poté ñàkk jom man Choumi loolu laa jàpp man sumi dama gëm ni que Amina Poté bokk na ci jigéen yi gën a ñàkk jom au Sénégal rawatina jigéen ñuy liggéey ci télé. du ngeen mës a gis Amina Poté toog 12 boo xamante ni nii du def lenn loo xamante ne les Sénégalais dañ ko ciy critiquer. gis ngeen nit récemment képp koo xamante ne ngay seetaan samay vidéo def na ay quelques mois ci ginnaaw. Manchou mi bokk naa ci sénégalais yi génnoon di ko jéem a défendre. mooy ba mu divorcé. ñun ñëpp dégg nañu rumeur yi fa xewoon. gis nañu ay sénégalais yu bari yoo xamante ni seen yoon nekkul woon ci biir néegu sëyam ñu gis ni jur bu ñu yëgee ni dafa divorcé ñu ci bëri ci les sénégalais génn nañ di wax ci biir sëyam ñu ci bëri si ñoom di ko accusé mais mun naa ne man Choumi rek maa doon chroniqueur boo xamante ne man képp bu ngeen seetaanee ci YouTube bi man kese maa fi mës a génn di ko défendre mais neexul ba neexul nag mais dama seetaat mbiri seetaat ko mais Mina Poté yow neexul ba neexul mais yow amoo jom quoi bil ay eh, wallaay taala yow amoo jom gis nga jigéen boo bëggee ñu respecté la à chaque fois koy wax samay vidéo boo bëggee ñu respecté la da ngay respecté sa bopp mais man Choumi dama gis ni que yow da nga am manque de respect boo am sa digganteeg sa bopp aussi sa diggante digganteeg yenn sénégalais yi luy suivre mënuma gëm ngay une animatrice nga toog kanamu télé lu ci bëri boo génnee di wan sénégalais ay gestes yu indécentes ay gestes yoo xamante ne nii you know what I'm saying mënuma comprendre man je sais pas ndax da nga koy def pour jéem jaay sa bopp je sais pas ndax da koy def pour jéem ut jëkkër man mënuma comprendre quoi. li ma bëgg xam nag mooy yow xanaa na nga foog ne yow Amina Poté sa ñaari xot taat yooyu noonu ñun les Sénégalais ñun daf ñoo intéressé ñun. mais yow fan nga teg ni à chaque fois boo génnee war a def si émission boobu xaw ma seetu bi lañ koy wax xaw ma nu tuddu ci man du ma ko sax suivre mais lan moo tax à chaque fois boo génne di wan Sénégalais ay forme ñun lan moo ñu intéressé ay forme yow li ma gën a metti nag leen kese la mooy man dama gis ni que ñun au Sénégal daf ci bëri ndeysaan ay góor yoo xam te ni dañoo sonn daf ci bëri ay góor yoo xam te ni ndeysaan ñoo faible ñu ci bëri si ñoom même bu ñu gisee jigéen buy def benn affaire boo xamante ne nii yu ne seen dañ ko war a wax dëgg mais da ngeen gis ni dafa ay góor yoo xamante ni sax dañuy nekk ci commentaire yi di ko ci pousse nan dañ koy jay dama bëggoon sama gaay yi ngeen dem ngeen liir yenn commentaire yi nekk ci vidéo TFM boobu ngeen di gis mooy vidéo bi ma leen woon léegi ngeen gis Amina Poté di def émission di wan les Sénégal ay xottu taatam dem leen ngeen liir yenn commentaire yi fa nekk ngeen xool lu baax li ma leen wax yenn góoru sénégalais yi ñàkk faayre yi pourquoi yéen waa TFM mënoo leen wut seen émission boobu seetu bi xaw ma bu fekkente ne mënoo leen wut animatrice bu ngeen fa mën a teg koo xamante ne respecté na les sénégalais ñu jàngal yi dara seen bopp yi bu fekkente ne loolu mënu leen ko am ngeen tëj seen émission boobu du koy gën man su mi personnellement gisuma njëriñ bu émission seetu bi am man gisuma ko man mosuma seetaan benn émission seetu bi boo xamante ne Amina Poté moo ko def mu génn ci émission bi ñëw jàngal sénégalais yi lu bees loo xamante ne nii mën naa am luñ ci jëlee man mosuma ko gis dama gis ni à chaque fois ci biir ay émission seetoom lu ci bëri ay sexe lay incarné bu ñëwul toog di wan sénégalais ay xottu taatam bu ñëwul toog di force sénégalais ay ancham mi ngi ñu indil ay bongo man wala mu indi ñu ay borom tama mësuñoo génne lu ñu intéressé émission seetu bi mësu ko def ma bëgg wax ak nag Bouba nduur mi nga xamante ne moom moo géré yu know yenn programme yi à la su ma juumul moom mooy directeur des programmes Bouba dama la bëgg amal benn affaire quoi gis nga bu fekkente ne yéen waa TFM bëgg ngeen garder seen réputation il faut que ngeen xool yenn émission yi ngeen di animé à TFM man su mi dama gis ni benn émission kese moo fay émission bu intéressante ci man muy benn émission boo xamante ne nit ñi bu ñu koy seetaan du début à la fin dina am luñ ci jëlee muy émission kakatar mooy émission kakatar boobu AOJ di def benn émission boobu képp laa fa gis mu émission bu intéressante gisuma fa beneen bu ñu ñëwee ci émission seetu bi wax naa leen ko léegi lii moo fa am da ngeen fa jël tekk fa benn animatrice boo xamante ne nii moom dafa foog ni sénégalais yi ay xottu taatan daf leen intéressé bu ñu jugee ci émission seetu bi ñu ñëw ci émission jàkkaarloo man dama gëm ni émission jàkkaarloo sax normalement woo moo waroon gën a nekk émission bu gën a intéressante au Sénégal mais dafa manqué une organisation ba nga xamante ne nii ñi fa toog yu noom seen mën nañu waxtaan ba jóge fa lu ñuy waxtaanee duñ ko sax teg ci xel maanaam émission werante la Bouba Ndour day toog xëcc ay idéem kële Birima xëcc ay idéem benn Fou Malade xëcc ay idéem maanaam sénégalais yi amuñu leen luñ ci jàng buñ jugee ci émission jàkkaarloo ñu ñëw ci émission quartier général muy benn émission boo xamante ne man su mi personnellement dama gëm ni que dangeen ko créé yéen bu jéem a jaxase yenn tarixa yi au Sénégal bu teyee ngeen invité murit yi bu subaa ngeen invité laayeen yi gannaaw suba ngeen invité tijaan yi léegi ñi nga xamante ne ñoom ñooy waxtaankat yi ci tarixa yooyu noonu ku ci nekk si ñoom boo ñu ñëwee toog da ngay jéem a ñoddi sa sëriñ yëkkati ko ba ci kaw pour tuutal yeneen sëriñu jàmbur yi yéen ñëpp gis ngeen baax li ma leen wax yéen ñëpp au Sénégal mënoo leen weddi loolu maanaam émission quartier général dañ koy organiser pour di jéem a créer ay affaire de ay jalousie diggante ay tarixa bu ñu invité tey benn Gana Messere lu muy waxtaanee ci Sëñ Tuubaa you know ñu ci bëri mënuñu ko dégg man sumi personnellement taalibe Sëñ Tuubaa laa murit laa li Gana Messere di waxtaanee day dugg sama biir xol mais dama leen bëgg wax ne leen niñ koy organiser ñoom bi TFM man d'accorduma ci loolu parce que mënoo leen jël benn émission ngeen invité tey Sëñ Gana Messere du mat sax benn un mois ngeen indiwaat ko ci chaîne bi léegi bu ko defee keneen ki nga xamante ne moom you know ci tarixati yàlla bokk bu ñëwee di waxtaan ci Seydi Hadji wala muy waxtaan yu noom seen ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif li muy wax dafay mel ni genre concurrence la day mel ni day jël Sëñ Tuubaa di ko tëkkaleeg Seydi Hadji Malick yéen loolu ngeen di créé biir Sénégal man loolu laa gis. ma bëgg leen wax nag ne leen bu fekkente ne da ngeen jug pour am lu ngeen jox sénégalais yi dangeen di jox sénégale yi qualité jëmm ji kii du yoon sax muy toog ci seen plateau yooyu Amina Poté mii man dama gis ni moom ndiruwul sax une animatrice yorul caractère bi yorul personnalité bi ma bëgg la wax nag Amina Poté ne man damaa seet ba sedde mais yow respecté sa bopp man su mi vidéo bu mu mujjee def ci yow génn naan maa ngi lay défendre ba nga divorcé man maa ngi koy réccu parce que nit ki boo jugee di ko défendre sax da ngay am ay argument mais yow nit ku la défendre da nga koy rusloo lii nga ñuy jéem a forcé nii dama la bëgg wax rek ne la ça ne nous intéresse pas ñun suñu yoon nekkul ci say forme suñu yoon nekkul ci say xottu taat bu la neexee boo jugee tey ni gaaruwaale Viviane Dour def na fi émission tout récemment chronique naa ci génn naan dafay gaaruwaale Viviane Dour parce que tout simplement doomu Viviane dafay concurrence ak moom ci ay produit yu muy jaay muy Zeyna Ndour Zeyna dafa génn di publicité même produit Amina Poté di jaay ngeen dégg ko mu def émission di aar waale Viviane Ndour di ko jaarale ci Titi. ndaat suñu bongomaan yi message bu ñu doon jox Titi la parce que ñi ngi koy xool dafa tombeek ñu nit ñu am suñuy problème bopp ah mais euh, Titi ñu ngi lay seetaan. on tout cœur avec toi ak sa famille yaral say doom uuf leen buñ la te buñ la jaaxal te buñ la yilif ndax doom boo ko mënatul a yilif dootoo ndayam mooy sa ndey. te yéen ñëpp gis ngeen ni depuis boobu ba léegi ñu ngi ko continuer bàyyi ko muy animé à la mennum Kouthia rek laa mës a dégg mu génn wax ci loolu Kouthia te yéen ñëpp tey gis ngeen ko mujj na jógee TFM parce que TFM justice nekk fa dafay télévision boo xamante ne nii maanaam man mënu ma leen comprendre quoi boo dee nit ku dëgg mënu fa yàgg boo dee nit ku dëgg mënoo liggéey TFM parce que ñi fa nekk ñu ci bëri si ñoom lu neex Bouba Ndour la ñuy bëgg di wax lu neex Youssou Ndour la ñuy bëgg di wax normalement émission seetu bi dañ ko war a cancel bu ngeen ko mënul cancel ngeen xool beneen émission bu ngeen ko jéem a jox. lii nii daal tey sama gars yi moo doon vidéo bi Choumi TV génnoon pour wax ci ATFM bëggoon wax aussi ci émission bi parce que émission bi dafa ma soof du ma leen ko nëbb émission bi Amina Poté di def daf ma soof man gisuma benn njëriñ bu mu am gisuma lenn lu ci sénégalais yi mën a jàng jëmm joo xamante ne boo toogee ci kanamu écran bi say xottu tat rek nga mën ak say forme boo génnoon wane see xottu taat yaa ngi fa indi ay bongo maan yaa ngi fa indi ay borom tama wala nga ñëw di gaaruwaale ay yaay jàmbur te depuis boobu ba léegi ñu ngi continuer di la bàyyi ngay liggéey à la TFM mais yenn animateurs yu ci mel ni ku caa wala yenn comédiens yu mel ni ñoom boo xool duñ fa yàgg moo tax mu jugee fa parce que TFM dafay une télévision boo xamante ne booy wax dëgg mënoo fa yàgg te ñëpp gis ngeen ni sax ñu ci bëri ci waa TFM bu ñu jugee yeneen télé dem biir TFM dañuy xarab yeneen télévision yu nekkoon bu ñu toogee ci kanamu plateau TFM loolu rek la ñuy wax Bougane Gueye Dany lii 2STV il laa fa jëlee te démb foofu lañ tàmbalee Choumi TV mi ngi leen di béggee ñëpp sama gars yi di leen ñaanu jàmm ak salaam mais kon aussi di leen rappeler ne leen képp koo xamante ni ci yéen ba nga suivre sama actualité mën ngeen ma fekk sama gars yi ci yeneen plateforme yi bu fekkente ne yéen a ngi ak des messages yoo xamante ni bëggoon ngeen ko véhiculer à travers chaîne bi mën ngeen ma ko bind sur Instagram mën ngeen ko bind ci commentaire yi mën ngeen ma ko si yónnee ci email boobu noonu ngeen gis suuf écran bi di choumi tv at gmail daa com choumi mi ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen jox rendez-vous yeneen di leen wax ni peace and thanks for watching ñaa ngi yàq sama der yàgg ma jiiñ lu ma deful ennemi arrête say jëf du ma merloo du ma xati loo daf ma yokk joom bëgg loo ma seerloo va te faire foutre ñappal sa xons doo ma sa gis sama rongoñ doo dégg ñu ne la maa tooñ dara du xew ba ma tiit su ma doonee tappal yàpp sama waa kooñ ma lekk joxo ma naan